سألت الله رب العرش يبقيني يزيد العمر أعمارا ويحييني لأرفع راية التوحيد والدين أجاهد في سبيل الله يرضيني بسم الله الحمد لله wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi al axyaar wa sahaabatihi al abraar wa azwaajihi al athaar wattaabiciina lahum wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddiin amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di ko delloo wàccuwaay bi mu yelloo ñuy julli di sëlmal ci sangu-sang yi ak waa këram muy sunu yenent muhammad di ñaan borom bi subhaanahu wa yàlla bu mu deñ di dotti leeram fa moom ak njabootam ci biir loolu mbokk yi ñu yëkkati kàddu nuyoo muy jàmmi yàlla ak xéewalam yërmandeem ak barkeem yàlla bu mu deñ di ko dotti ci mboolee mi mindeefam ginnaaw loolu mbokk yi ñuy nuyu ñépp di ziyaar ñépp di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal tawfiq ay jaamam ñu dellu siwaat ak yéen beneen yoon ci sunu jotaay bii ñuy amal ci weeru koor gi tuddee ko sunu jotaayu weeru koor dippi koor gi ba tey ñu koy amal ci bis bu nekk tey incha allah di sunu juróom-ñeenteeli jotaay lay jiitu ci sunu kàddu mooy doon ñoo xam ne dañuy sant borom bi subhaanahu wa taala naka noonu ñuy santaat borom bi subhaanahu wa taala ci ay xéewalam yu bari yoo xam ne day dëgg-dëgg mënuñu koo lim ñuy santaat borom bi subhaanahu wa taala ci tawfiq gi nga xam ne defal na ko ay jaamam ba ñu mën a fekkee weer bu tedd bu bari ngëneel bi kon day dëgg-dëgg dañuy doon ñu koy sant ndax kenn ku nekk ci ñun umpalewul am na sunuy mbokk jullit yoo xam ne ñi ngi fi woon ak ñun di am yaakaar ni weer bu màgg bu tedd bii dinañ ko teewe waaye fekk na borom bi subhaanahu wa taala namul loolu fii ñuy wax ak tey ñun ñi ngi ci kaw suuf waaye ñoom ñi ngi ci biir suuf subaa ndax dinañ fi nekkam déet dëgg-dëgg day loolu borom bi subhaanahu wa moom moo ko xam waaye ñu koy sant ci lim ñu wërsëgal ñu teewe lim ñu wërsëgal ñu tal lim ñu wërsëgal ñu doon ñoo xam ne mi ñu may chance ba tey ñu mën a màng ay yiw kon dañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin di ñaan borom bi subhaanahu wa taala nim ñu wërsëgalee ñu doon ñu ko teewee yàll nañu sëgal ñu yëg xéewal googu ba occasion bi ñu doon ñoo xam ne duñ ko rate waaye di ñaan borom bi subhaanahu wa taala sunu way dawlu yooyu dem nga xam ne du nangu moo leen yóbbu ñun ñi fi des du lànk moo ñu fi bàyyi dëgg-dëgg day ñi ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu jéggal leen te ndax moom moo xam yërmaande ba ñu yelloo yàlla na ko sa mbaxtal ci ñoom ñu ñëw ak yéen continuer sunu thème bi nga xam ne jamono yi yépp moom lañu nekk di waxtaanee mu aju ci wàllu fen ndax dañu toll ci weer boo xam ne dafa ñëw pour sangat nit ñi ci wàllu jukko waaye jàppale ñu ñu mën a faj sunuy feebaru bànneexu bakken kon weer la boo xam ne dafa ñëw pour raxas jukko yi ñuy waxtaane thème boo xam ne nag boobu ba tey ñi ngi ci waaye thème bi moo ni mel ndax àddina boobu lañu toll mooy àddina boo xam ne danga naan ndax dëgg nekkul luy réer waaye déedéet ba tey am na ñu mu soxal ba tey am na ñoo xam ne ñu ngi koy jëfee di ko jëflante donte ne itam bari na lool ñoo xam ne koo ca wax dëgg nag mu mere la dëgg moom duñ ko jël fenn duñ ko laal fenn te duñ ko jege am na ci ñoo xam ne itam mën nañ koo joxe waaye duñ ko laal sunu jotaayu démb ñu waxoon ne incha allah tey dañuy leeral jullit bi kañ lañ koy may mu mën a jëfandikoo kàddu yoo xam ne du dëgg te fekk na loraange du ca am duñ ko ca topp dara waaye itam la boo xam ne dafa sensible lool di wax képp koo xam ne itam dem nga ba mu leer ci yow nga cay sukkandiku pour mën koo jëfandikoo ngal la waaye na ragal yàlla bu mu doon looy woote woo wala looy incarné te fekk na dëgguwul ci yow ndax yàlla xam na li nëbb xam na li feeñ baneen bi itam nga xam ne buñ la ci dul topp it na doon darñe ci mbir yi mooy dem nga ba amatoo benn dëgg boo jëfandikoo li nga mënoon yépp def nga ko dara susu fi lu dul laazim nga wax lu dul dëgg su boobaa nga wax lu du dëgg ndax moom moo fi sas waaye jubluwaay ba nag day dellu ci defar fi ñuy sukkandiku ci li ñuy daliloo ci loolu ci xadiisu ummi kalsum bi mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laysa alkazaabu alladi yuslixu bayna annaasi fa yanmi xayran aw yaquulu xayran mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga xam ne dafay defar diggante nit ñi muy wax ay kàddu yu rafet wala muy tuxal ay kàddu yu rafet mu ne loolu nekkul fen kon loolu danga ciy jànge yow jullit bi diine islaam diine la joo xam ne jokkale ràbb defar dëgg-dëgg day lu ko jaral la waaye soxlawul benn yoon nga doon koo xam ne dangay ruutale dangay xotti dangay jaxase jële fii yóbbu fële ci li ngay dox say nettaleeg say jokkalanteeg lépp safaan la jubluwaay ba du dara lu dul nga doon koo xam ne dangay tas diggante déedéet mbir la boo xam ne diine bëggeewu ko noonu yu mel nii nag ci amaakin yiñ la ko may yow jullit bi ñu jox la ci misaal soxna si dey dafa juuyoog boroom këram réeroo dafa am seen diggante boo moytuwul soxna si jël na ndabal fay walla waa ji réeroo am na wàcc na soxnaam bopp ba tey ngeen ciy def jéego lépp loo leen xam ci lu baax ah jéem ngeen ko caa def waaye taxul dara sotti yow ci boppam nga déplacé wu dem ci soxna si ne ko ah man dey subhanallah sa boroom kër de bi ma ko gisee démb xaalo bi mu mel doy na waar soxna si ne ah lu tax nga daan ne ni ma ko gisee day dëgg-dëgg dafa juum rek li am seen diggante waaye ku la bëgg la dañul di wax ci yow lu rafet ba ni ma fay jógee soo ko gisoon sax yow danga koy yëram wax-wax ju nooy ju rafet joo xam ne soxna si ci boppam xolam daf ciy tooye xelam daf ciy dellu nga jóge fa dem ci waa ji ne ko ah man dey ci sa soxna laa jóge de waaye bi ma ko gisee sama yaram daw na de xam naa ne daal dellu si ci yow rek la bëgg ndax la mu defoon njuumte la de ndax tey soxna si dey ni ma ko gisee ku la bëgg la nekk naag moom waaye dañul di wax ci yow kàddu cofeel dañul ci yow di wax kàddu yi rafet ma xam ne daal li am seen diggante dëgg-dëgg erreur la erreur la jéem a la jëli sa soxna sa soxna seeday boo ko jëlee maa ngi njott ne dina ñëw de ndax la mu defoon réccu na ko façon yooyu donte ne li ngay wax kenn ci ñoom ñaar taxewu ko waaye li la poussé ba nga waxee noonu mooy ay kàddu pour defar dalaay ruutale taxulaa jóg kon li nga jëfandikoo fen la du dëgg waaye fii nga ko defee may nañ la ko ca misaal bu mel noonu wa illaa itam nga taxawoon sa buntu kër nga jékki-jékki rek seen kenn rek ak xelam ndeysaan mu ngi yor gàddu gàddu saagam am ñu ko jiital ak seeni jaasi mu ñëw rekk na tabax sa biir kër ña ko toppoon ñëw na la sëñ bi amul ku jaar fii wala ku dugg fii ah nga ne leen déedéet li nga jëfandikoo du dëgg waaye yaa ngi daw sa benn mbokku jullit loru kon loolu su boobaa dafay doon loo xamante ne loo mën a jëfandikoo la waaye li ngay leeral rek lu mel noonu balaa nga koy jëfandikoo day fekk ne amoon lenn luy dëgg loo fa mën a teg lu dul fekk na fen boobu rek nga mën a def ngir sa mbokk jullit mucc su boobaa loolu rek nga mën a taxawee wa illaa ngay liggéey koo xam ne yaa ko yoreel alalam wala sax dangeen di liggéey yorele ko mu am jafe-jafe ak nguur wala ak ku mu mënti doon ñu bëgg nangu alalam ci tooñeen bëgg alal ja mu yor ñu fokkati ko teg ci seeni loxo ñu woo la ca yaag diw de yéenay liggéey nga ne waaw waaw yaa ko yoreel alalam nga ne déedéet te yaa ko yor waaw lu mën a nekk la lu tax yaa ngi bañ ab loraangeem te sa kàddu gi mooy liy defar wa illaa ñu ne la waaw alal ji moom xamoo ci dara fu mu nekk nga ne xaw ma ci dara nag de gis nga boroom xam-xam yi nee nañ ak yu demee noonu ki nekk ak soxnaam itam waa ji soxna si da koo mere wala muy yëkkati ay kàddu yoo xam ne da koy béggalee moo xam soxna si la moo xam waa ji waaye damay wax ne lépp loo gis nag lu dépassé les limites gënu ca muy bégal soxnaam bëgg ma kontaan ah man dey sama yaay ak sama pàppa li ma leen di bëgg yëpp ah yow laa gën a bëgg de nangam ak nàngam façon yooyu kon yii yëpp ay xeet la yoo xam ne boroom xam-xam yi nee nañ lu mën a nekk la waaye di wax ne ak lum ci mën a doon lum ci mën a doon balaa ngay utilise yu mel nii na fekk ne amul benn dëgg boo xam ne mën nga koo utiliser yaani dem nga ba dëgg jeex fa yow mooy amatoo pexe mooy amatoo pexe kon di dellu siwaat di leeral ni su fekkente ne am na ay dëgg yoo xam ne mën nga ko utiliser ba doo tàbbi ci fen bii donte ne dangay defar ca la jiitu loolu moom mooy gën ndax dëgg du nekk sa kanam mukk mën laa defaral nga koy jéggi di dem ci li nga xamante ne du dëgg kon di wax ne balaa ñu la koy may nga mën koo jëfandikoo day fekk dëgg jeex na ci yow mooy jéeme nga nu ne waaye gis nga ne amoo benn dëgg boo xam ne mën nga ko teg ngir mbir mii daal di sotti mu mel ni léeg-léeg dangay gis ay famille yoo xam ne wuute am na seen diggante ci yu yàgg ñu bari jéem ci dem dina ñëw dikk dina ñëw waaye kenn ku ci nekk rek jàpp fa muy jàpp yow yàlla defal la tawfiq nga am occasion wu dem mën a waxtaan ak famille boobu ndax am na ci ñoo xam ne seeni jafe-jafe li koy gën a yàggal mooy ñi nga xam ne ñoo ca nekk di ruutale dem fii wax fële indi fële jokkaloo fële yow nag nga jug te borom bi subhaanahu wa taala rek tax nga ne ah man day damaa bëgg a defar am na ci ñoo xam ne dinañ dem sax ba réeroo ba léeg-léeg bu ajoo ci xaalis ñoom ci seen baax ak bëgg lu baax ak ragal lépp loo xam ne day tàqale da leen di jaral ñoom ñu jël seen alalu bopp ñëw ne la ah diw day nee na la mu defoon réccu na ko de nee na tuub na ko de nee na jukkay xale rek moo ko jàppoon de nangam ak nangam lii daal jël na ko teg sa loxo lii ngeen doon xëccoo daal mi ngi nii wala ah moom day nee na moo la ko baaloo xam ngeen ne loolu ay mbir yu rafet la kon dañ ciy jàngee ne dëgg-dëgg nag ab jullit dafay mën a defar te daw lépp luy ruutale ab ruutale moom xaaruñu ko ci ab jullit warta doon sax maninam kon incha allah xam nañ ne waxtu bi njatt nañu bu baax a baax fii la ñuy yëkkatee suñu jotaay di leen jox dig ba suba ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala jërë ngeen jëf ahsanallahu ilaykum asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu